mbokk yi dal leen ak jàmm te ngeen abonné te like te partagé ci chaîne bi di Tivaouane 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi leen di jëriñ Tivaouane 24 TV seen bi dox saa su ngir dab seen bànneex xew mi am loo bëgg a siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkoo wala ak Tivaouane 24 TV ci numéro yi barki Kaaba gi Tivaouane 24 yàlla na ko yàlla def télévision bu mag ci barki ah, yonent Tivaouane 24 yàlla na nekk télé incha allah tay ñoo fi ci euh terrain préfecture euh, lan mo fi xew moy ouverture tournoi bi nga xamante ni tournoi des daara bi nga xamante ni sunu xarit sunu sëriñ sunu doomu nday Sidi Ahmed si bu sëriñ Babacar si Mouhamadulil Mansour moo ko initié woon tey nag mu teg ko ci loxol sama xarit bi ana vieux ci loxol vieux kan mu koy organiser daara yi ci Tivaouane yëpp koy am dañ koy organiser te du am xeex du am xuloo du am benn problème tey nag di woon ouverture yi vieux kan sama xarit parrainel ko ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Mbaye doomu góor gi Alxaaji Mbaye Donde ak Pape Malick Mbaye Thiat Cheikh Tidiane nag dafa génn yabal Pape Malick bi nga xamante ni mooy rakkam di leppam euh, pap tay nga ñew gis xalé ni ñu la téro euh, nga xamni euh, wax deug yalla pap malik mbay doomi góor gi Alxaaji Donde buñ ko paree lu delu ci dara yaakar naa loolu xandeer la bu damé ci waat wu dafa delu tay ban kaddu ngay wax. loolu deug la fa tabarakallah elage Hadj ndax commune samay wax da ngay xamni yaag nga deg dégg ma ni ñaari fi am muy dundu ak de te bo bo boo juddoo daara lay tudd bo faato it dara mo lay ñaanal kon digënté bi lo fi def rek nay dara kon nak dara digënté ci ji bu la tuddee bis way daari seydil xaaji malik ndax madaarisuhu fil ilmi xayrul madaarisi wa awraaduhu fi zikri ma misluhul wirdu loolu damay bàyyi maam góor sax incha allah moo koy firi fa tabaarakallaahu ma lay wax ni daal kontaan naa ba fa kontaan yam ndax nag wax dëgg yàlla ku gis xale yi xam ni seen dënn yi alxuraan rek a ci nekk seen dënn yi leeru salaatul fatiha rek a ci nekk seen dënn yi bëgg seydil xaaji malik rek moo ci nekk dégg nga leen léegi ñu ngi wayantoo naan min nuurihi naylu ma nil naa minan waari yal na nu yàlla làmb ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi ñaan daal yal na ngeen mokkal alquran ci barke Seydina Muhammad li leen fi indi muy xam-xam yal na ngeen ci am ba doyal dem leeral fa ngeen dëkk ci barke Seydina Muhammad li ma wax nag maa ngi ko waxee ci sama ndigalul kilifa Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye ndax El ñun ku ñu xam-xam ni ñun njaboot rek lañ bëgg nekk taalibe rek bëgg a nekk boole taalibe Cheikh Seydil Hadji Malick ah dañuy sant yàlla bu baax a a baax. jërëjëf Pape ah tey nga ñëw ànd ak Pape Toora ànd ak ki nga xamante ni maam mooy maam Gorlo ah, tabaarakallaahu xam naa ni ñuy def bala ñoo jox biyeekat li nga xam mooy kaddu gi maam yan kaddu gi ci. waaw sant yàlla rek ndax ñun waa daara lañ. Mhm. buñ fekk seen xale yi dañuy kontaan. lii du lu bees fii ku xam Serigne Moustapha Al Maktoum mhm. ñoom fii lañ ko daan defee. Mhm. kon ñun buñ demee ba xale yi dikkaat di defaat lii mu amee ci ndigalu sëñ Sidi Ahmad mu sëñ Babacar Mouhamadul Mansour di ko ñaanal moom mu yàgg fi te wér kon mu teg ko ci loxo Vieux Kane bi dañuy kontaan ñu tuddee ko nag Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye Cheikh génn yebal Pape Malick mii ñu ànd ak Pape Toro mi nga xam ne tey moo fi teewal autorité dëkk bi ndax it nag ànd ak yow nga teewal fi képp koo xam ne yaa nekk ci wàllu média kon alaaji ñun bu ñu ñëwee ci daara fekk fi waa daara dañuy kontaan ndax ñun doomu daara lañ bu ñu li Pape wax léegi rek boo juddoo daara soo génnee àdduna daara lu gën daara ndax dawaukum fa amma daaukum fa sunubukum wa amma dawaukum fal istighfar mu ne alxuraan mooy feeñal jàngoro yi mais alxuraan ay faj jàngoro yi kon bu xale yi defee lii dañ ciy sant ndax lii sport la te sport daa bokk ci wér yaram te wér-gi-yaram tax nga mën a jaamu yàlla ku wérul doo jàng ku wérul doo julli ku wérul doo woor kon a ah, ñi ngi santaan bu baax di kontaane waat ci Pape Malick waaye sant yàlla li Pape ñaan rek yàlla ngeen mokkal alxuraan bu ngeen jàngee lu ko yàlla barkeel jàng lépp njëriñ waaye jàng nu mu mën a toll te barkeel moo ëpp njëriñ Seydou Adjma nag nee na li ma jàng bariwul waaye li ma dégg bari asalaamaaleykum. jërë ngeen jëf mbokk yi nag eh, ñu ngi jox kàddu ki nga xamante ni bala ma koy jox kàddu dama bëgg yéen ñëpp ngeen ànd tàcc ko ca kaw muy fekkan ndax organisateur ndax loxoy tàcc ca kaw a kaw a kaw a kaw. vieux yan kaddu ngay wax ci teewaayu Pape Malick Mbaye tey. waaw xanaa kaddu contentement rek ndax euh, li may wax chaque jour nee na mbir mi doon na mbir moo xamante ni waratuñ koo yemale suñu biir waratul yem ci ñun daara ji kase parce que euh, barki démb laa ko wax dama ko fekk muy nelaw mais mu rafetlu ko te ni mu ñëwee ci moom tey ji muy pare ouverture noonu lay rogalaatee ba ci yow mii noonu lay rogalaatee ba ci Pape noonu lay rogalaatee ba ci Mame parce yëpp la ñu ñu jiital ma may seen président daara ku ne xam na ni amul dara waaye am na yàlla am na itam alquranul karim ñoom li ñuy dajale li nga xamante ni moom mooy déroulé tournoi yi chaque année ñu ciy am coono yu metti ren ñu toog def réunion xalaat ñu ni pourquoi match yi mënuñu jël match de poule yi di ko jël di ko parrainer par kenn bu yëkkatee fukki dërëm joxe ko sax ñu mën am lu ñuy faye suñu arbitre mën am lu ñuy jënd suñuy bal mën am tamit loo xamante ne dinañ ko def ci kees gi pour en bu kenn gaañoo wala leneen ak leneen lii moo waral ñu sabab lii tey jël ko tuddee ko Pape Malick Mbaye bi nga xam ne soppay daara ji yëpp la waaye niñ ko ko tuddee noonu lay déroulé ci yéen ñëpp di ci woo nag autorité yëpp parce que élage euh, sonn nañ ci tournoi bi lu ñu am ak lu ñu amul dinañ ko ci def ñun ku ñu xam-xam ne daara rek a ñu ñor tournoi bi ñu ngi ciy def lu ñu mën gannaaw yàlla mennum job si lañ ci gis koo xamante ni ñaari at mu ngi ciy taxaw na mu waree daaw itam Abdoulaye Ndiaye ngalgu ci demi-finale bi ñëw na ci taxaw taxawaay bu mat sëkk ngal la ñi nga xamante ne ñu ngi leen di seeti ñu ñuy jox seeni kàddu seeni i kàddu rek la ñuy mën a téye gëm ko suñu demee ba bés ba jot gisuñu leen dinañ xaw a jaaxle daaw final bi dañ ko daro la dañ ko nano dañ ko ndaroon annulé li waraloon ñu ndaroon ko annulé mooy métti métti gu métti gu ñu dund ba dem na ba dañuy cotiser wala ñu xool nu ñu mën a def ba mun a def suñu finaal loolu nag ñu ngi ciy woo autorité yëpp di wax ni mbir mi comme ni ko maam góor waxee lii du lu bees lii lu yàgg la ca jamonoy Moustapha si diine Serigne Moustapha yoroon ko bi mu fi jógee daayira na nii la déroulé woon mu doon benn équipe boo xamante ni dañ daan euh, organiser yu mel nii ba dem ba doon ay daayira tey ñu def ko daara yi ci Tiwaawan yëpp mun na dem ba doon tamit daayira yi ci Tiwaawan yëpp leen di gërëm di sant Pape Malick Mbaye ci disponibilité bi mu def di sant Pape Toora di sant suma magu daara góor góorloo muy sama sëriñu daara di la sant yow itam di sant mbokki mbooleem transporteur yi ñuy déglu ak mbokk mbokk taalibe yëpp kii mooy sama vice président moo topp ci man Ousmane Ndiaye mooy suñu secrétaire général ak mbooleem koo xamante ni yaa ngi ci group bi rek ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ni ca kaw ca kanam na mbir mi gën a dem rek ñëpp jàpp ci asalaamaaleykum mbokk yi bu baax a baax a baax Pape moo ngi nii jëm ba Kaolack waaye dafa bàyyi lépp li muy def ngir xam ni taalibe yii ginnaaw yàlla ak yonent bi nu mu mel taalibe yee tax Pape Malick Mbaye li lay xamal ni dafa war a ñëw fekke lii mooy boo ko fekkee ci programme bu wooyee bay génn oto bi du mën a bouger lan moo ko waral taalibe yee koy wër ndax cofeel gu nu am ci ñoom kon su ngeen soppee Pape Malick Mbaye tàccu leen ca kaw a kaw a ma dégg maa ngi leen di baax di la gërëm sa dernier village nag damaa ñëw ni leen match bi ku gagné ñu ni ma daari Seydil Hadji Malick man leen yàgg naa gagné. <laughs> jërëjëf